Saar juróom ñett sancal nañu gaalu yàlla ga ba mu ko defee suleymaan woolu magi israyil mboolem kilifay giiri israyil ak seen njiiti kër maam ya daje yerusalem ca moom ngir ñu àgg siyon gox ba ñu naan kër daawuda ba yëkkatee fa gaal ga kóllëre aji sax ji dence waa israyil gépp nag daje ca buur suleymaan ca weeru etanim ca màggalu juróom ñaareelu weer woowu ba magi israel ñépp dikkee sarxatkat ja yëkkati gaal ga ñu boole gaalu aji sax ja ak xaymab ndaje ma ak mboolem jumtukaay yu sell ya ca biir xayma ba sarxalkat ya ak léwén ya daldi gàddu lépp buur suleymaan ak mboolem israel ma daje fa moom ñoom ñépp a nga bokk ak moom teew ñu jàkkaarloog gaal ga di rendi ay gàtt ak i nag yu kenn mënula lim mbaa di ko wàññi ndax bare gannaaw loolu sarxalkat ya yóbbu gaalu aji sax ja ca bérébam ca biir néeg bu sell baa sell ca roon laafi malaakay serub ya ndaxte jëmmi serub ya seeni laaf daa tàllalu tiim bérébu gaal ga laaf ya yiir kaw gaal ga ak i njàppoom njàpp ya daa guddoon ba nit mën a seen cet ya te fekk ko tollu ca béréb bu sell ba ca kanam néeg bu sell baa sell waaye mënee sula tollu ca biti di seen cet ya njàpp yaa nga fa ba tey jii dara nekkuloon ca biir gaal ga lu mooy ñaari àlluway doj ya ca Musaa yeboon ca tund Oreb fa aji sax ji fase woon kóllëre ak bànni Israyil ba ñu génnee réew Misra ba sarxalkat ya génnee béréb bu sell ba niir wa daa fees kër aji sax ja ba sarxalkat ja talatu joon liggéey ndax leeru aji sax jaa nekkoon ca niir wa niir wa feesal kër ga suleymaan àdduna ba mu ko defee suleymaan ne aji sax ji moonoon lëndëm gu fat lay màkkaanoo mu ne aji sax ji tabaxal naa la kër gu màgg màkkaan mooy dëkke ba faw ci kaw loolu buur suleymaan wëlbatiku ñaanal mbooloom israel mépp fekk mbooloom israel mépp a nga taxaw mu ne cant ñeel na aji sax ji yàlla israel moom mi sottale loxol boppam la mu waxoon daawuda sama baay ci gémmiñam ne ko la dale bés ba ma génnee bànn israel sama ñooñ ca misra ba tey taamuwuma benn dëkk ci mboolem giiri Israël bu ñuy tabax kër gu sama tur di nekk waaye maa taamu Daawuda ngir mu falu ci kaw Israël sama ñoñ la doon yéeney Daawuda sama baay nag moo doon tabax kër gu mu tudde aji sax ji yàllay Israël teewul aji sax ji wax Daawuda sama baay ne ko gannaaw yaa fasoon ci sa xol yéeney tabax kër tudde ma ko def nga lu rafet ngir sa yéene xol la woon waaye du yow yaay tabax kër gi sa doom ju góor ju soxi ko ci sa geño moom mooy tabax kër gi du dema ko aji sax ji moo sottal waxam ja mu waxoon wuutu naa sama baay daawuda toog naa ci jalub israel noonee ko aji sax ji waxe woon tabax naa kër gi tudde ko aji sax ji yàlla israel te it sàkk naa fa béréb bu ñeel gaal gi def àlluway kóllëre aji sax ji mu fasoon ak sunuy maam ba mu leen génnee réewu misra suleymaan yëkkati na kàddug ñaan gannaaw loolu suleymaan taxaw jàkkaarloog sarxalukaayu aji sax ji fa kanam mbooloom israel mépp mu daldi tàllal ay loxoom asamaan daldi ne yow aji sax ji yàllay israel amul jenn yàlla ju mel ni yow fa kaw asamaan mbaa ci kaw suuf si mu tiim yow miy sàmm kóllëre ak ngor ñeel sa jaam ñiy doxe seen léppi xol fi sa kanam yaa sàmm kàddu ga nga waxoon sa jaam ba daawuda sama baay ci sa gémmiñu bopp te yaa sottale sab loxo sa kàddu bés niki tey léegi nag aji sax ji yàlla israel nga la sàmmal li nga waxoon sa jàmb daawuda sama baay ne ko desu la xaj mukk ci saw askan ku góor kuy tooge jalub israel fi sama kanam ndegam saw askan a ngi moytu seenu yoon tey doxe fi sama kanam noone nga daan doxe fi sama kanam kon nag yow yàlla israel nga la saxalal wax jooju nga waxoon daawuda sa jàmba waaye yow yàlla ndax yaay dëkk ci kaw suuf sax seetal rekk asamaan yi ba ca asamaani asamaan ya mënu laa fat waxuma laa kër sii ma tabax waaye aji sax ji sama yàlla rikk teewlul li ma lay ñaan man sab jaam di la ko dagaan nga la déggal sama yuux te nangu ñaan gi ma lay ñaan bés ni ki tey yàlla na nga ne jàkk guddeeg bëccëg ci kër gii béréb bi nga noon fi la sama tur di nekk te yàlla na nga dégg ñaan gi ma jublu béréb bii di ko ñaan man sab jaam yàlla na nga may nangul sama dagaan nangul Israël sa ñoñ bu ñu jubloo béréb bii ñaan la yàlla na nga ko dégg béréb ba nga dëkkee ca asamaan ba nangul leen jéggal leen ku ñu tuumaal ne moo tooñ moroomam te yoon waatloo ko ba waat war ko bu dikkee di waat si fi sa kanam saraxalukaay bi ci biir kër gii su boobaa yow rikk dégge ko asamaan àtte say jaam ngir tekki tooñ daanub tooñ këpp añu jëfam ci kaw boppam te nga dëggal ki am dëgg jox ko dëggam gi mu yelloo bu Israël sa ñooñ daanoo fi kanam ab noon ndax tooñ gu ñu la tooñ bu ñu wàññikoo ci yow sàbbaal saw tur ñaan sàkku saw yiw ci biir kër gi su boobaa yow yàlla na nga déggee asamaan ba jéggale bàkkaarub Israël sa ñooñ te nga delloo leen sa réew ma nga joxoon seeni maam bu asamaan tëjoo taw amul ndax tooñ gu ñu la tooñ bu ñu jubloo béréb bii ñaan la sàbbaal saw tur di dëddu seen bàkkaar ndax sa mbugal su boobaa yow nga la nangoo fa asamaan te nga jéggale sa bàkkaaru jaam ñi Israël sa ñooñ nga la xamal leen yoonu bu baax wi ñu war a doxe te nga tawal sa suuf si nga joxoon sa ñooñ muy seen cër bu xiif amee ci réew mi mbaa mbas mbaa gàncax gi lakk mbaa benaat xural ko mbaa mu di njéeréer mbaa soccet mbaa su dee congum seen noon ci seen dëkki réew mi mbaa muy mbooleem luy musiba ak mbooleem jàngoro su boobaa lépp lu ciy ñaan akuk cinu gu bawoo ci képp ku mu doon mbaa ci mbooleem Israël sa ñooñ te fekk ku ci nekk ràññee mititu xolam ba tàllal ay loxoom jubloo kër gii su boobaa yow nga la nangoo ko asamaan màkkaan ma nga dëkke ba jéggale te nga jëf ba yool ku nekk kemu mboolem ay jëfam yow mi xam xolam ndax yow dong yaa xam xolu mboolem doomu aadama bu defee dinañu la ragal seen giir dund ci kaw suuf si nga joxoon sunuy maam te itam doxandéem bu bokkul ci Israël sa ñooñ bu jógee réew mu sore ngir sa tur ndax kat dees na dégg sa tur wu rëy ak sa doole loxo ak sa kàttanu përëg bu dikkee ba jublu ci kër gi ñaan su boobaa nga la nangool asamaan màkkaan ma nga dëkke te nga defal doxandéem boobu mboolem lu mu la ñaan ndax xeeti àddina yépp xam sa tur ngir ragal la ni Israël sa ñooñ te xam ne saw tur lañu tudd ci kër gi ma tabax bu sa ñooñ di xarajeeg seen noon ci yoon woleen yebal suñu ñaanee ci aji sax ji jubloog dëkk bi nga taamu ak kër gi ma tabax ngir saw tur su boobaa nga la nangool asamaan seenug ñaan ak seen dagaan te nga may leen ndam bu ñu la moyee nde amul nit ku dul moy ba nga mere leen teg leen ci loxob noon noonu ba jàpp leen yóbbu am réewam mu sore mbaa mu jege bu ñu demee ba seenum xel dellusee fa réew ma ñu leen yóbbu ngàllo ñu tuub tey sàkku aw yiw fi yow foofa ca réewum ña leen jàpp ne la noo may noo ñaaw noo def lu bon bu ñu wàññi ko seen léppi xol ak seen lépp jëmm ci yow foofa ca seen réewu noon ya leen jàpp ba ñaan la jubloog seen réew ma nga joxoon seeni maam jubloog dëkk bi nga taamu ak kër gi ma tabax ngir saw tur ngala su boobaa nangool ca asamaan béréb ba nga dëkkee seen ñaan ak seen dagaan te nga sàmm seen àq te it nga jéggal sa ñoon ñi la moy jéggal leen seen mboolem tooñ yu ñu la tooñ te may leen yërmandey ña leen jàpp ba ñu yërëm leen ndax kat ñooy sa ñoñ ñi nga séddoo génnee leen misra taalu xelkaay weñ gu ñuul ga sang bi teewlu bu baax samay tinu ak sa tinuy mbooloom israel mii ba nangul leen mbooleem lu ñu la jooy ndaxte danga leen a ber ci biir xeeti àddina yépp séddoo leen te waxoon nga ko musaa sa jaam ba jotali ko ba ngay génne sunuy maam misra yow boroom bi aji sax ji suleymaan ñaanal na bànn israel ba suleymaan noppee ñaan aji sax ji mbooleem ñaanam ya ak dagaanam yooyu daa siggee ca sarxalukaayu aji sax jamu sukkoon tàllal loxo ya jublu asamaan mu taxaw di ñaanal mboolam israel mépp daldi àddu ca kaw ne cant ñeel na aji sax ji may israel mbooloom ab dalukaay muy la mu waxoon lépp ngir benn baat fanaanul àll ci diggay jàmm yi mu digge woon yépp musaa jaamam ba jottali yàlla na sunu yàlla aji sax ji ànd ak nun na mu ànde woon ak sunuy maam yàlla bu nu wàcc mukk mbaa mu di nu dëddu yàlla na nu xiir ci boppam nuy tegu ci yoonam yépp di jëfe ay santaaneem ak i dogalam ak àtte yoonam yi mu dénkoon sunuy maam sama kàddu yii ma ñaan fi kanam aji sax ji yàlla na doon lu sunu yàlla aji sax ji def yitteem guddeeg bëccëg mu di ma dëggal man jaamam di dëggal Israyil ñoñam saa yu nu ko soxlaa su ko defee xeeti àddina yépp dinañu xam ne aji sax ji mooy yàlla te amul moroom waaye nag jox leen aji sax ji sunu yàlla seen léppi xol ngir ngeen mën a tënku ci dogalam tey jëfe ay santaaneem ni bisub tey suleymaan daloo na kër yàlla ga bu mu ko defee buur suleymaan ànd ak israel gépp sarxe ab sarax fi kanam aji sax ji mu defal aji sax ji saraxi cant ci biir jàmm lépp di ñaar fukki junniy nag ak ñaar ak téeméeri junniy gàtt ak ñaar fukk noonu la buur ak ban israel gépp amale xewu jagleb kër aji sax ji bisub keroog buur sellal na digg ëtt ba janoog néeg aji sax ji ndax fa la joxe saraxu rendi doomal ba ak saraxu pepp ba ak nebbanu saraxu cant ci biir jàmm ndax saraxalukaayu xànjar ba fa kanam aji sax ji moo tuutoon ci defandoo saraxu rendi doomal ba ak saraxu pepp ba ak ne banu saraxu cant ga ci biir jàmm suleymaan nag amal màggal ga jant yooyu ànd caak israel gépp muy ndaje mu rëy mu jóge lebu amat ci bëj gànnaar ba ca xuru misra ca bëj saalum di màggal si fi sunu yàlla aji sax ji ba mu am juróom-ñaari fan tegaat ca juróom-ñaari fan muy fukki fan ak ñeent bésub juróom-ñetteel ba nag buur yiwi mbooloo ma ñu ñaanal ko daldi dellu seeni xayma ci biir mbégte ak xol bu sedd ci mboolem lu baax laa ji sax ji defal daawuda jaamam ba ak israyil ñoñam